salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waa mbooloo mi ñu ngi siyaar ñëpp ci turu sëñ Mor eh, dafa am mbokk mu doon laaj ñu leeral ko tuuti ci wàllu avocat muy fruit boobu ñuy wax avocat avocado ñen naan ko avocat fruit bu bari njëriñ la nag ndax ñi yittewoo wér-gi yaram sax ñoom wax nañ ne nekk na loo xam ne doo lu nit mën a dund rek te doo ci doo ko laal bokk na ci yi nga xam ne tey des koy war a jëfandikoo ndax baax gu baax ci wàllu yaram wax nañ ne it meññeent yu ko gën ci wàllu yaramit it bariwul taxawaayam ci wàllu yaram mu ngi mel ni gis nga ni yàpp ndawal mel ci yaram yi moom gàncax la goo xam ne taxawaay boobu la am ba ñu bare bari sax dañ koy jëfandikoo comme ni ñuy jëfandikoo ndawal noonu def ko cent dix cent dix wala ñu def ko comme seen place salade di ko jëfandikoo boo demee ci réew soow jant yi ñu ci sun sow jant yi ñu ci bari dañ koy jëfandikoo di ko booleeg ay ganaar ak yu mel noonu di ko jëfandikoo boo demee ci biir réew penku jant bi noonu bari na ci ñu koy booleeg yi ñuy jëfandikoo di ko lekk am na sax ñu koy booleeg kenn gato yeeg yenn crème yeeg yooyu yenn naan yi hmm. di ko boolee moom it moom it di koy jëfandikoo ba ci sax chocolat yi kon fruit la bu bari njëriñ boo xam ne gis nga wet gu ne dañ koy jëfandikoo dañ koy lekke it boole ci bokk na ci ñam yi nga xam ne yi gën a dëppoo ak gi yaram ci suuf si ñuy dundee lañ wax ndax bari na yu baree bare ferñeent yu baree baree bare yu ci nekk surtout rawatina xeeti vitamine yi loolu ñuy wax vitamine K wala vitamine E ak vitamine C vitamine B ak vitamine A te yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne soo amee ci ñam rek day am solo lool ndax xeet yooyu dafa bari lu ñuy def ci yow yaram am na fer te mooy tax nit ki du manki deret wala muy animé néew doole phosphore am na ko manganésium am na ko potassium am na ko am na lu ñuy wax fibre yi tax li ngay lekk gaaw a rees yooyu yëpp du la yomb am na protéine te loolu mooy taxoon ma ne la taxawaay bi nga xam ne moom la ndawal am moom lay ak yeneen yu bare bari yoo xam ne tey yuy aar yaram la ci xeeti tawat yu bare bari moom avocat boobu te lu bari diw la boole ci lu bari diw diwam googu sax li may bari bari sax du tax mu bokk ci diw yooyu nga xam ne ndax diw gàncax yi seeni lor bariwul diw lu mel ni ki ndawal ñooy graisse yooyu ñooy gën a ëpp luñ leen di moytu ci wàllu gàncax yi moo tax bari na diw lool te terewul mu am ay njëriñ ndax gàncax googu nga xam ne tey moom la doon bokk na ci njëriñam nag maanaam wëtt xol waaw ndax waxoon naa ne am na vitamine B6 am na it acide boobu ñëw acide folique te yooyu su amee ci ak ñam bu ñuy jëfandikoo day aar de régler acide amini boobu nga xam ne su yéegee ci bare ci yaram mooy indi yenn xeeti jafe-jafe tawat ci yooyu moo tax euh, boo koy jëfandikoo yi waral tawati xol yooyu moom da koy freiné da koy wàññi ba doo ko gis daanaka moom avocat boobu ba tey waxoon naa ne am na vitamine E te yooyu it ba tey bokk na ci yi nga xam ne dafay régler xeeti diw yi nga xam ne tey eh, daa bari njëriñ ba jafe-jafe wàllu xol yooyu Euh, doo ko am baax na lool moom awa ko waaye ci wàllu cholestérol ndax li may bëri bëri diwit bokkul ak diwam googu du day yokk cholestérol bi nga xam ne mooy lore te mooy cholestérol LDL bi wala cholestérol HDL bi parce que LDL boobu moom la ñuy ragal boobu nag da koy wàññi soo koy jëfandikoo moom da koy wàññi ci yaram te dina taxit bu fekkoon da nga manqué HDL boobu it da koy yokk moom itam ci wàllu yaram kon surtout ñi nga xam te dañuy yëg ne léegi seen cholestérol day yéeg mooy wala seen LDL bi suñ koy jëfandikoo da koy wàññi bu dee ñi nga xam ne dañoo yëg ne ba tey seen HDL bi moom dafa wàññeeku mooy bi baax bi taux biñ ci waroon a am dafa wàññeeku suñ koy jëfandikoo it moom it da koy yokk kon moom itam lu baax la lool baax na lool moom avocat yi ndax day takk tension bi ba yéeg googu mu doon yéeg wala wàcc googu mu doon wàcc suñ borom mën na ko ci defal tawfeex bi bu koy jëfandikoo loolu dootu ko sonalati ndax wax naa ne amoon na potassium te potassium boobu lépp loo xam ne am na ko rek loolu daa bokk ci yi nga xam ne day takk ak tension day yemale tension ba tax léegi tension bi yéeg wala bi wàcc noonu yëpp yàlla ma na ci ci defal tawfiix ndax ya koy waral yooyu lay yemale ba loolu du am ndax foo gisee tension bi yéeg rek am na lu ëpp ci moom ci yaram ba tax ni xol bi doxee wala muy wàcc it ba tey am na lu wàññeeku ci yaram ba tax xol bi doxin wi xaw wàññeeku suy jëfandikoo avocat nag yooyu yëpp yàlla mën na ko ci defal tawfiix ba tey day aar ci xeeti lakk-lakk yi ngay yëg léegoo-léeg nga gis ku yëg dënn bi lakk wala wet yi lakk wala sax biir bi tàngoroo muy def di lakk su koy jëfandikoo moom muy sunu borom mën na ko ci saafara ndax dafa am ay farñent yu bari yu ci ne yoo xam ne day aar xeeti lakk-lakk yooyu nga xam ne léegi mooy nekk ci wàllu biir wala ci sofe-sofe yi wala ci sax ci dënn bi yu mel noonu avocat it baax na lool ci wàllu bët surtout gis-gis bi ndax bêta carotène boobu ñuy wax ne moom la am boo koy jëfandikoo moom itam day tax sa gis-gis leer wala bët yooyu nga xam ne day xaw a xonq mooy lu mel ni luy kafeeg yu mel noonu yooyu yëpp da koy aar ba loolu suñu borom mën nag ci saafara ba tey lu baax la lool ci wàllu suukar suukar suukar ci deret ndax moom itam da koy takk waaw ba xëy na sax googu mu daan sax ci deret ji ba muy ëpp war koo jural yenn xeeti tawati suukar yooyu bay aajo sax di wàllu pikir yooyu wax nañ ne sax moom miim daanaka mën na xaw a aar loolu mën na koy wuutu su koy jëfandikoo moom avocat yooyu yëpp yàlla mën na ko ci defal tawfiix ba su amaloon tawati suukar yooyu nga xam ne moom koy waral yooyu yëpp su fekkee day jëfandikoo avocat yàlla mën na ko ci aar ba suukar su su dee ci deret ji ba tey baax na lool moom avocat ndax dafa am waxoon naa ne am na vitamine B mooy acide folique boobu rek ma tax su fekkoon jigéeni wérul di ko jëfandikoo mën na koo aar ci wàllu malformation yu nga xam ne mooy am ci wàllu tu tànk boobu di judd léegoo léeg am lu ci wàññeeku wala mu demee noo xam ne bëgguñ ko waru koon a demee wala sax yeneen yu koy dal yooyu yëpp suñu borom mën na koy saafara ba Ehm, aar ko ci moom jigéen wérul jooju ba ci ñi nga xam ne sax seen butitu njurukaay day am ay jafe-jafe buñ koy jëfandikoo moom itam moom avocat boobu yàlla mënal liñ ciy defal tawféex ba loole yëpp day saafara baax na loole ci xeeti wàllu bopp surtout wàllu yuur ñi nga xam ne tey comme ni seen yuur war a yégee yëg yow sum séréwo boobu dox gi mooy dox doxu ko wala sax muy taxaw yooyu yëpp tawal yi nga xam ne day waral loolu suy jëfandikoo avocat suñ borom mën na ko ci saafara ba loolu du jafe-jafe yu du ko gis ba ci xeeti cancer yi sax wàllu góomi biir yeeg prostate yeeg yu mel noonu yépp ba ci cancer yooyu nga xam ne day feeñ ci wàllu ween yi su koy jëfandikoo moom itam suñ borom mën na ko ci defal tawféex ba yooyu yépp mën naa saafarawu bu koy jëfandikoo it léegi baax na lool mhm. da koy aar ci wàllu eh, gaaw a ndax ndax antioxydant maam la ba tax yi nga xam ne tey day tax di feeñ ci yaram xam ne système de défense am boobu nga xam ne soldaar yooyu di aar ay yaram yaramam dañuy néew doole nga gis mu ne gune gu tuuti boo ko xoolee nga yaakaar ne kii am na téeméeri at te dara defu ko lu mooy néew doole loolu suy jëfandikoo awaka yooyu day yokk kaaraange yaramam yooyu ba nga xam ne ñat ñett yi mooy am ci yaramam ak wàllu sàddit yi crampe yi mooy defal yooyu yëpp yàlla da ko ci aar moom ci avocat boobu ba ci xetu gémmiñ ñi nga xam ne sax dañu am xetu gémmiñ suñ koy jëfandikoo moom itam lu ci baax la lool day setalit wàllu butit ba tax na bu koy jëfandikoo ndax fi mu ne bëri na xeetu gémmiñ yu baree bari boo ko seetee rek la dana koy sabab ñàkk lekk mu gaaw a rees wala seere bu yu tar yooyu danay tax nit ki toujours am ngelaw luy génnee ci gémmiñam di te du bokk ak ni mu ko bëggee waaye su fekkee day jëfandikoo avocat yooyu yëpp suñu borom da ko ci saafara ba mën na caa am ak mucc baax na loolu it ba tey ci wàllu yaram surtout wàllu teen yi soo koy jëfandikoo ndax diwam gi ndax diw gi lu ci gën a bëri dañ koy boole sax yi ñuy toccame ko di ko jëfandikoo dañ koy boole sax ba tey ci yi nga xamante dañ koy faje wàllu der siti yeeg kurabat yeeg yenn xesen yeeg yenn tache yeeg yooyu yëpp bu koy jëfandikoo su borom ma na ko ci aar ba ci ñi nga xam ne dañoo bëgg am pois waaw ñi nga xam ne dañoo jeex te bëgg am pois ñi di ko jëfandikoo moom itam baax na lool suba suñ koy jëfandikoo moom avocat boobu yàlla mën naa tax seen yaram màgg bi mu war a màgg mu màgg ko ba nga xam ne tey niñ bëgg ñu toll mën nañ koy toll baax na lool ci wàllu ngóora ci wàllu kër gi nag ngóora surtout góor waaw moo xam ci wàllu néew doole la walla sax koo xam ne tey yëf yi ni mu war a jógee du ko jóg wala sax su ci àggee it daanaka du am lam bëgg rek mu mbeer delluwaat fu mu nekkoon su koy faral di ko jëfandikoo moom loolu am baax na ci loolu ba ci ñi nga xam ni it tey même ñu ngi am liñ bëgg ci wàllu ngóora gi waaye sax am njaboot yomb leen loolu ci yenn xeeti ferñeent yi nga xam ne day manqué ci seen wàllu ndox moomu wala sax seen hormone ci wàllu yaram yi suñ koy jëfandikoo moom itam boole ko ci li ñuy lekk di ko jëfandikoo moom itam yàlla da ko ci defal tawfe bu baax a baax ak yeneen yu bare bari yoo xam ne daal takk yu ëpp na waaye lii rek doy na tegtal ne kon ab fruit la boo xam ne bu bari njëriñ la boo xam ne lu ñuy jëfandikoo la ci wàllu àddina bi yaatu na lool moo xam ci penku bi la moo xam ci sow bi la kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.